asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mbokki jullit yi ñu ngi leen di siyaare Gaal moo leen di te laa birenteeg yéen ci xeet tur yàlla yi may waxtaanee yéen rek bëgg mu leer ba ñëpp mën koo jëriñoo eh, te bañ cee loro loo rek moo ci suñu yéene léegi nag xam nga tur yàlla noonu ma la ko misaale nga xam ne tey ma ma jox la misaal tey bu fekkoon da ngaa nekk xamlu yow mi xam ne xam nga tuuti ci ñenn mënu joom nag laay wala ma wax ko ci wolof ngir ñëpp mën koo bu fekkee ne da nekk ñetti biddi ñetti biddi yu sawara yi moom misaal ko ñetti biddi sawara yi ak ñetti biddi ndox yi xam nga yooyu mënuñoo ànd mënuñoo ànd ci denc teg sëy mënuñoo ànd ci wàllu tur yàlla ak mënuñoo ci jaxase seeni marchandise di liggéey lépp lépp ci yem lu mu ci mën doon mënuñoo ànd ñetti ñetti ñetti ñetti yu sawara yi ak ñetti ndox yi mënuñoo ànd dañuy lorante lox ndox mi day daal fay sawara bu ko fekkoon alal jeex day daal day daal seey dem yooyu nag lañ leen di wattu loolu noonu muy defee ci nit ak ànd ak nit ak nit noonu lay def ci tur yàlla itam bu doon tur yàlla lay faye nga nekk sawara mu nekk ndox dalay fay ba nga giim maa la wax lii ci dee ngay mujj wopp xëy di wopp wopp ak kii di dund werayaan ba xëy dee yooyu lay def xeet yooyu nag moom lañ leen di lal léegi mu ne ni comme tey nga nekk sawara eh, ñetti burj yi sawara yi nga nekk ci benn Eh, léegi ñu jox la tur yàlla woo xam ne te ñett bi di ndox yee benn la ci bokk nga yor ko di ca lang-langi li muy li tur yàlla di baax baax nga ne ca di lang-langi mën ngaa am am tuyaaba rek ñu di la ko bindal fee waaye mi ngi lay lor bokkut ak lor ji tur yàlla moom ku mën a yor di ko sikkar da nga ca am tuyaaba ñu ngay lay bindal tuyaaba ja fee waaye lor ja moom du tee nga gàddu ko léegi nag da nga caa mënoon a jariñu te doo ca loro yooyu tax ñu di la di la ko wax léegi nag ma man man man ma waaye boo jëlee tuyaabay kese dégg sax boo fekkee da jël lori kese ja tuyaaba ja moom ña ngi la koy dencal fee bu faatoo fekk ko dëgg la bu faatoo danga ko fekk moom yooyu ndax yaa ko lëggéey waaye nag lor na lor lor ji yaa ko yenu yooyu nag lañ leen di wattuloo yooyu moo tax jàngatu yàlla ba xam ko wala nga dem ci ku ko xam mu seetal la ko ku ko boo ko bëggee nga fekkee da ko bëgg a jàng baax na boo ñëwee incha allah dees na la ko jàng bu soobee yàlla bu fekkee dangaa dangaa bëgg a xam tur wooy jaamoo yàlla looy liggéey rek di ci faj say aajo itam boo ko bëggee lool am nañ sart mën nañ mën nañ ko xamal bu soobee yàlla nga contacter ci numéro yi 77 672 33 84 77 672 33 84 76 681 74 63 76 681 74 63 wala 76 ba tey 656 19 63 76 656 19 63 77 0 033 66 87 77 033 66 87 Abdoulaye Diop Gandigal wa salaam